toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. sëriñ sunu xalifa ba alxaaji Maxamed na fi sàll fa tabarakallah kon ñoom ñëpp wuy juneen seen borom ñu ñaanal len yalla yokk sen leer te bar saq ta taasuñ seeni barke kon bokk ñu ngi sant yalla di julit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamne mo waral bés bi xamne mom la boromam tan tanal ko bopam ndax mo ne ko dam xalaqtuka li ajli wa xalaqtul khalq kulluhum li ajlika dama la tan sallallahu alayhi wa sallam yow ngir sama way mbinde fi yep ma tànn leen ngir sa jëmma ba ko tànnee mu tànnal ko xeet wi gën ci xeet yi te mooy kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas tabarakallahu kon dañuy sant yàlla suñu waram subhanahu wa taala ci tànn gim ñi tànnal loolu kon mbokki jullit ñi mbokk yi fi teew ñu ngi sànni kàddu yoo xam ne ñu ngi ko jëlee ci ndigalu xalifa ne nañ ko jox gan ñi nga xam ne ñoo jógee fu sori ak fu ñu mën a jóge ñu ñëw teewee ci bés bii mooy bés bi nga xam ne Seydi Alxaaji Saaliwu Kan mi nga xam ne fa tabaarakallaahu mu nga nampee ca leeri Seydi Xaaji Habib ànd ak moom joge ko Madinatul Madina Koungheul mu laxas mu topp ko wam ne ko abib foo jëm falaa jëm alxaaji abibu sàll ànd ak moom ñu doon dëkk bi ñuy wax saam ñu nekk fa ab diir sang bi soxla dëkk boppam mu ne ko saaliw dama bëgg sama dëkk bopp mu ànd ak saaliw ci biir àll bi ci dëkk bi ba àgg ci biir àll bi mu sanc foofee ñuy wax Dimisq tey kon loolu jëmm ju tedd jooju muy Seydi Alxaaji Saaliw Kan moomu moom la sëriñam yebal fii ci barab bii mu ñëw fàkk fii fekk fi kilifa yu baax fa tabaarakallaahu mu hoote bés bu màgg bii kon yal nañ ko yàlla fayal yàlla yokk leeram ca barsàq yàlla yaatal ak mboolem ña nga xam ne ñoo nekk barzat yàlla jéggal leen xaare leen aljana kon mbokk yi ci tur xalifa monsieur le préfet xalifa nee na yow ak délégation bi nga àndal ak sous préfet ak député Dame Cissé ak mbooleem délégation yi nga xam ne ñu ngi ci sa gannaaw bu ñu ko bëgg lim sax dañuy juum waaye dañuy jéggalu ci lim gi waaye di la xamal ni rek sa ndaw li nga doon yebal te mooy sous-préfet ñëw na fii def liggéeyam ñëw na fii def liggéey bi nga ko santoon mooy lan soot seet lan mooy soxla gàmmu gi dëkk bi lan la soxla lan lañu ñu aajoo mu dug jëlal boppam dëggal boppam tànkam ñëw ba fii ñi toog ak moom ak waa dëkk bi ak ñi nga xam ne ñoo yoore programme gàmm gi ñu toog ak moom ñu wax ko li nga xam ne moo di soxla yépp mu bind ko yóbbul ko su préfet yóbbul ko monsieur le préfet loolu lu rëy la sëriñ bi nee na fa tabarakallahu mboolem li nga xam ne tawat nañ ko ba mu agsi ci sa loxo gis nañ lépp ndax yebal nga service di sen ñu ñëw fi pompe dëkk bi loolu doyul nga yebal délégation yi nga xam ne ñooy wàllu kaaraange gi ñu ñëw taxawu mbooloo mi nga xam ne ñoo fi wara ñëw tey xam ne fu ne leen nit di jóge am na ñu jógee Dakar am ñu jógee mboolem dëkki Sénégal yi bëkku Koungheul fu ne rek am na kilifa yu fa jóge ñëw fekkee ci bés bii kon loola tax ngeen jël ñi nga xam ne fa tabaarakallaahu aar kaaraange dëkk bi ak réew mi moo leen ñor ngeen yebal leen fii sëriñ bi neena na gis na loolu waaye ci nuyoo monsieur le préfet sëriñ bi nee na mu ngi lay nuyu bu baax di la sant it ci sa liggéey rafet na ci réew mi ci gox bi nee na gis na daal bi nga ñëwee ci département bi léegi toujours rek ñu ngi gis changement yu bees yoo xam ne yokkute li ci réew mi yéen koy liggéey nee na loolu yëpp gis na ko ñu ngi leen sant di leen gërëm waaye nag ñoo ngi nañu it sunu kilifa yu baax yu tedd jóge ca barabu sell ba ci ndigalu xalifa sëriñ Mouhamed Sall mu yónni délégation bu am solo boo xam ne ci njabootuk Seydi Hadji Habib la ñu jiital ca Serigne Mouhamadul Mokhtar Sall moom mi nga xam ne moo délégation bi waaw ànd caag Serigne mustafa Moustapha ibnu Cheikh Alhaaji Cheikh Ahmed tijani Sall ànd caag Cheikh Mouhamadul Habib ibnu Khalifatu Alhaaji Mohamed Nafi Sall ànd caag sëriñ Mouhamadul Moustapha sa Moustapha Ka ak délégation bi ci gannaawam ñu joge ca Maabo di doom ci Cheikh Mouhamadou Modou Ka ca Maabo ak Mouhamadul Habib ibnu Cheikh Alhaji Habib Sall moom itam mu ngi fi ak mboolem délégation bi nga xam ne ñoom lañu àndal ñu ànd ak seen jàngkat yi nga xam ne mooy ki ñuy wax Subayru cam ak Babacar mbay ak Sayet Soose ak ñi àndal fa tabaarakallaahu sëriñ bi nee na gis na seenu ah, taxawaay seen dikk kontaan na ci kontaan lool lool di leen jaajëfal kon monsieur le préfet sëriñ bi nee na mbooleem lim sàkk woon ci gàmmo gi taxaw ngeen ci bu baax a baax ndax sa délégation bi nga àndal gis nañ ci rajo yi nga xam ne ñoo nekk Médina Yoro a rajo national bu Médina Yoro la ak Jimara FM ak tele bi nga xam ne moo jógee ba Dakar ah ànd ak sunu mbokk mi nga xam ne ni journaliste bi mooy Moussa Fall mu ñëw jël fas jël gàmm gi di ci liggéey waaye monsieur le préfet sëriñ bi nee na gis na it ci sa délégation ku mel ni Basiru bari xam na xam na kër gi lool moom ki démb la fi ñëw ànd ak délégation bi nga xam ne ñoom la ah Moussa Yebal ak député bi ñoom ah Kumba Ndiaye ak ah Dame Cissé jiitu nañ fi démb indi fi lu am solo ci ndimbal loo xam ne fa tabaarakallaahu sëñ bi nee na kontaan na ci bu baax fa tabaarakallaahu gis nañ it monsieur le préfet yebal nga it ndaw yoo xam ne nii ay médecin lañ ñu ñëw ci dëkk bi di faj képp koo xam ne yëg nga ci sa yaram ab tawat andi sax li ñuy wax ambulance mu ñëw war a koo xam ne ni ku ñu war a jàllale mu yóbbu ko kon loolu lu am solo la lu am solo la ci lu mel nii bés bu màgg bii kon sëriñ bi nee na kontaan ci bu baax a baax a baax waaye duñu bàyyi di fàtte sunu maire Arona Camara ak délégation maire yim àndal moom mi nga xam ne liggéey bi ci loxoom la jaar xam ne fa tabaarakallaahu lépp lu xew rek moom dafay communiquer ñiy wax lu ci ne rek moom xam na fa fa tabarakallaa fa muy jaar ba lépp agsi ñu ngi koy sant bu baax moom doom la ci kër gi fii la dëkk fii la juddoo kon fa tabarakallaahu dañ koy sant di sant it mboolem ñi nga xam ne nii a maire yu fi teew lañ duñ mën a cité ñëpp waaye dañuy sant délégation yi mu àndal yëpp fa tabarakallaahu xataa sëriñam bi ko jàngal sax ba yebal ko fii daf ko nangul moo tax mu yebal ko fii kon fa tabarakallahu ñoo ngi nuyu mbokki réew mi moo xam fu ñu mën a joge ci ay xeeti ah diina yeeg tariqa yeeg ñëpp mënuñoo lim ndax bu ñu limee rek dañuy juum moo tax ñi bëgg rek bañ koo guddal waaye ñu ngi nuyu dawaayir yi nga xam ne nii ñoo aju ci kër gi ñoom itam lu mel ni daaira dingira bi nga xam ne ñu ngi tuddee seen bopp ahbaabu Cheikh Seydi Hadji Saliou Kane ah ñoom itam seen teewaay rafet na ak mboolem dawaayir yi nga xam ne ñoo ci aju ndax lépp rek ci lëggiyal yonent bi alayhi salaatu wa salaam la ndax yonent bi alayhi salaatu wa moom rek moo jar a lëggiyal ndax kilifa yu baax yi sunu mag ñu baax ñi moom lañ delloon référence ngir roy jikkoom moo taxoon suñ borom nexoon ولكم في رسول الله أسوة حسنة نيهال نالين روي واي برافت بوغن كو موي رسول الله صلى الله عليه وسلم موتاخ موني هون لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يوننا تي ين يوننت بو خامني تي ين لا بوك دومو ادم لا منون نك اب ملائكه waaye déedéet yàlla def ko muy doom aadama mu nekk seen biir nekk ku ñeewente ci yéen nekk koo xam ne raufur rahim la ku bëri yermande la nekk ci seen biir ma yebal ko mu ñëw ngir lan ah wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin mu dikk nag ngir jëmmi yërmande nekk xeet wi nekk jëmmi yërmande ñaal mbindeef yëpp moom sallallahu alayhi wa sallam moom moomu nag moom lañ jagleel bés bii moom nag lépp nuñ ko jagleel loole dafay dem rek kanam dafay jëm kanam ba tax na képp ku jël sa alal def ca loole sun borom subhanahu wa taala moo la koy delloo ba mat sëkk te yàlla kum fay du manqué dafay ëpp waaye du fay kon yal nañu leen yàlla fayal gis nañ li nga xam ne moom la fi mbokk yi indi kilifa yi liñ fi indi mboolem ñi fi teew jogé ko fu yu dëkk yu sori ndax bu ñu commencé tudd dëkk rek dañuy dañuy bàyyi te am ñu ñu war a tudd te duñ leen tudd moo tax bëgguñoo tudd kenn waaye ku déggul sa tur da ngay xam ne dugal nañ la ci biir mbooloo mi nga xam ne fa tabarakallahu ñu ñoom lañ sant toute toute l'actualité à temps réel à temps réel sur Référence TV Référence TV la chaîne de l'innovation